أهلا an bikum fañ ko jàpp pon toxal ko jàppaat nanu ko ñaar fukki fan ak juróom ci weer wu ñuy nekk la école di tijjiwaat allah vox populi moo ñu ko xamal ci la classe yi def examen di dooraat njàng mi alxamis bi di ñëw rek wal fajiri yéen a kaay ne nañ kont juróom-ñetti fan dong la tribune yéen a kaay ne makki Sall njiiti réew mi fay toppandoo njiiti réew bu France Macron fa mel ni rek moo koy digal lu mu def rek mu def ko yaaw seet bi corona bi tàmbalee dogal bu France jël rek Sénégal jël ko France ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu ne ci la seen école yi tijjiwaat makki na ko léegi man ñaar fukki fan ak juróom source a yéen kaay ne ubbiwaat école bi kay fa mel ne rek sabar gu tas ayaw seetal si jamono ji nga xam ne si la jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi dem conseil de ministres proposé gaañi la 25 juin ci même jamono ji ci la waa C7 syndicat jàngalekat yi taxawal ab comité ngir xalaat date bu baax wax ko nguur gi ñoom yëfi fa leen a kaay nit ñi fa ñuy làmbatu xamuñu fu ñuy taxaw te pare guñ de coowle fi ne fañ jëm nag mooy sacrifier élèves yi yi war a def bac te loolu wut la deux soin lañ ko jàppoon bàyyi ko jàppaat ko vingt-cinq soin keneen ku ñu jàppoon moom it mujj nañ koo bàyyi mooy journaliste bi ñuy wax Cheikh Yérim Seck l'observateur ne hé Yérim fara ci de kaso la naroon na tëdd enquête yéen a kaay ne ginnaaw buñ ko bàyyee nee na dina def ab vidéo waxaat ci ay mbir yu garaaw leeral yëf yi tribune yéen a kaay ne hé daf leen ndànk Yérim Seck attekat bi fa ko placé contrôle judiciaire maanaam yoon fa koy may bët buñ ko soxlaa woowaat ko donte nag bàyyi nañ ko mu ñibbi këram ka ñu bàyyi wut mu ñibbi këram mooy Lamine Diack France gañ koy attee lay xëñ daal neexut ca moom libération moo ñu ko xamal ah procureur ba fa sàkk ñu tëj Lamine Diack ñeenti atu kaso doom jàpp juróomi atu kaso te mooy na ko bu fa yemoon sax muy jàmm di Pape Massata doom ji mandat d'arrêt international fu ñu ko gis jàpp ko ñu ne déete waayaati kuréel gi yor wàllu daw sant jàkk foo ko dégg ci àdduna bi fi mu toll ne sa xel ger ak tappala xaalis rek lay daj direct news na man kay li may laaj mooy lu tax Ablaye Wade ci mbiru Lamine Diack yi nekkul parti civil les ko man li ma xam daal mooy Lamine Diack yu mbokkam na nga ko ñaanal de fa mu jëm narta baax de li baaxu te ñaaw lool mooy soxna Aïda Mbodj fa xam waaju ko woon na ko danaa la rey ba nga dee ndax wax ji nga wax barki Dembo Ndiaye naan Mansour Faye ak Diouf Sarr nañ leen audité xool xaalis bi jaar seen loxo ci mbiru corona bi ñu leeral ko réew mi yéen a kaay ñi ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko na gaynde ak bawol gi ay bandi noo ko tëkk na fañ dañ koy faat le quotidien yéen a kaay ne moo taxit wax na jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi na ko sama kaaraanga yaa ko yor ki yor wàllu atte ci réew mi nag jëwriñ ji ñu ko dénk maître Malick Sall tey enquête yéen mi ngi xamal mooy kan ci këru diina la sosoo avocat la jaar-jaaram léppañ ca yéen a kaay ba yéen a kaay bi di laas mel ni ku naan ko comme moo yor wàllu yoon nag war naa lijjanti forêt classée bu mbaaw caxat-caxatee ngeen suuf sa di ko jaay caanam gu jaarut yoon jëwriñ ji di Abdou Karim Sall nag ak maire bi di Abdoulaye Timbo ñoom lañ tuumal na ñoo koy def li ñuy def kumba am nday ak kumba amul nday a fi am a yow seetal yow suufu ndakaaru littoral ba xalaat joo xam ne ñetti million doomu aadamaa ko bokk xam ñu ko jël rek di ko sàcc di ci am ay milliards te dara du leen ci fekk nag ñi ngi dox di taxawaalu te mooy yéen a kaay na loolu xam nga ne fa ñaaw li ñaaw dëgg nag mooy mar xamoo ndox moo naan waxuma ak di ko sangoo demal quartier yu bëri ca ndakaaru ña nga sonn li ci garaaw nag mooy nguur gi Macky fale na seetaan si du quotidien moo ñu ko xamal l'évidence yéen kaay na ko hée dafa ndàgg Macky seetaanu de jàpp na wañ na nopp jëwriñ ji ñu ko dénk Serigne Bay Caam nee na ko gaawal lijjanti mbiru ndox mi wala ma jëflante ko ak yow nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne juróom-ñaar fukki doomu aadama ak ñett korona bi rey na leen Sénégal libération yi na yëf yaa ngay yokku de laas yéen a kaay na ko ci ñetti fan rey na fi fukki nit ak juróom-ñaar aay réew mi yéen a kaay na leen démb rek ñett la fi rey xam nga ne loolu garaaw na ñaaw na li ñaaw dëgg nag ca Touba la amee dëkk bu sell ba fa xam ñoo xam ne korona ba moo leen fa faat sapeur pompier service di sen ak waa Croix-Rouge ñëw ngir jël niw ya denc leen askan wa di leen yooxu yuuxoo ba ñuy jooy laa wax njiital sapeur na ñenn ñi li ñuy def fa ñaaw fa ñuy di ba pare di ñu teg fitna l'observateur moom di ñu leeralal li tax corona bi li muy rey fi mu toll ni Sénégal bari leneen lu bari luy xaar njiitaram Macky Sall mu war koo régler mooy ndimbal gi mu diggoon entreprise yi naka noona waa kër docteur seen prime yi mi ngi ko war a fay fayagut ko ak ay arriéré ñeel waa BTP yi l'observateur na ci gàttal Macky junney milliards moom la dajale ci corona bi léegi junney problème nga koy xaar mu war koo régler ka régler juróomi junney masque ak junney ñaar téeméeri gel jox bu bu ngara ca Kolda du kenn ku may Ibrahima Bari l'évidence yéen a kaay ñi ko xamal tàggat yaram Naples jël na ku kubu Italie Koulibaly mbuqi Chris ca teg dóor ya stade yéen a kaay ñi ko xamal li mu ñu xamal moom Aziz Ndiaye bi fi nekkoon promoteur lamb mooy na jeex na agasi intaha bàyyi na lamb donte neexut ko ndax ku bëgg lamb la nee na dootuma ànd ak benn mbër di ko yóbbu ci lamb ji finish Aliou Sarr nag maa ngi koy digal mu bàyyi CNG bi te dem man ma dem ci l'observateur fekk fa Luc Nicolaï bi doon amal grève de la faim bàyyi lekk génn na ca ma ngay ndékki njoganalu reer ba suur source aay yéen kaay moom di ñu xamal na ca réewum Kenya la fa am du jàmm de corona bi xam nga fa ñoo tëj askan wa diggante janvier ak weeru mai mu mujj jur fa nag musiba naaru laay ñeenti junne xale yu jigéen yu manqué tuuti ñoom lañ fa war na loolor te ñoom ñëpp ay élèw lañ di ci gën a garaaw mooy ñaar téeméer ci xale yu jigéen ya fukki at ak ñaar lañ am jàpp fukki at ñeent ay le quotidien yéen kaay la waaye fii Sénégal corona bi tamit mi tëju gi nit ñi tëju ci corona bi tax na sëy yu bari fi toll ne tas nañu bu benn sëy doon tas léegi juróom benn tas ñi seen sëy yi gën a tas nag mooy xale yi takkante waa ma ne korona ak lu dul korona sëy bu tas moom du jàmm de surtout nag bu ngeen caamee njaboot xoolaat leen ko bu baax bala ngeen a fase ndax ëllëg su njaboot ga màggee rek réccu xam de